am nag ay xew-xew yu yaatu yu xewoon ci réew mi waaye nag particulièrement Touba rawati ki ñu waroon cee indi ay kàddu gindi ak ay kàddu métitlu ak ay jéego yi saafara li waral wax ji lépp nag mooy mbirum ceeb bii nga xam ne président Macky Sall dafa génne woon 69 milliards ni da koy def ci Covid bi sàkk ca lam cay sàkk jënd ko ceeb jox ko Mansour Faye ngir mu wër réew mi jox ko waa réew mi. 45 départements yi nekk ci Sénégal benn bu ci nekk nanga ko doxalee xam nañu ko ndax ñu ngi topp information yi waaye li yàlla dogal na nga xam ne mooy Touba gii nga xam ne amuñu lu dul moom biñ fi dellusee gis fi loo xam ne jàppoon nañ ni feneen lañ ko doon séentoo ful Touba te loola lenn warulu ko lu dul ñennet ci waa Touba defi tappale defi lobi def yëfi caay-caay def lu wuuteek mbirum Serigne Touba ba alali jàmbur joo xam ne boroom a ko moom ñu foqorti ko ci seeni borom jox ko ñeneen loola nag kenn jiitu wut ci mairie bu Touba ndax ceeb bi waxoon nañu ni gendarmerie ak police ki lañ bokk mais gendarmerie ak police joxewuñu ko bi ñu leen ko wàcceelee ndax amuñu espace bu ñu ko wàccee wala ñu wàcc ko foogoon ngir sécuriser ko ngir mu mën a àgg ci askan wi ñoom sàmm ko dong lañ ca mënoon. waaye séddale joxe moom bind ñu maasuñu mbind ma ak maas ma nag ñoo ngi ko joxoon mairie bi mu jox ko ñu topp ci ñoom muy chef village yi. ñu séddale ko chef de quartier yi ngir askan yu wan cee jot ñu gis ci nag ay xeeti ñaawteef yoo xam ni ndax da ngay gis koo xam ni dafa am bourse familiale daan yeeku sa ñetti weer yu ne juróomi junni nga gàddu sa carte de bourse ak sa carte d'identité nga ñëw ci secteur bi nga war a jëlee sa ceeb ñu xool sa tour ak sa sant sa numéro téléphone sa numéro carte carte d'identité lépp nekk ci machine bi encore nekkaat ci fiche bi nga xam ne moom lañ tiim ba noppi nekkaat ci russi yi nga xam ne moom la ñuy dagg waaye waaja day wax kooka ni ko doo am bu nekkul tax du ma am mu ni ko dañ laa bindal non parce que waroo am fii dangaa ngaa dëkk xayra doo amee daarul ma naan dëkk daarul ma doo amee caaween da ngaa dëkk janatu doo amee euh, doo amee daaru kudóos wala doo amee euh, guy mind euh, wala doo amee daarul minam te loola dara waralu ko ndax lu dul yëfi càcc ndax ñooñu ñu bindal non bi leen bindaleen non ba noppi dañu ni woon su ñu jëlee ceeb boobu dañ koy delloo si préfecture suñu paree mbooleem ñi amoon carte te amuñu ndax bokkewuñu fu ñu dëkkee suñu demee ci préfet préfet jox leen seenu ceeb waaye ñun li ñu gis du loolu commission yu seddoo ay ceeb chef de commission yu sàcc ay ceeb ba askan wi di ko jooy la ñu gis ba noppi tam bu dëkk bu nit ki dëkkee Mbàkke mën nga ne ko dëkkoo Touba nit ki bu dëkkee njaaree mën nga ne ko dëkkoo Touba waaye lan moo tax mairie Touba di benn mairie benn nit kenn nit moom ko muy sëriñ bi nga jóge daaru xuddoos dem daaru menam ñu la doo am kon daaru menam ak daaru daaru xuddoos bokkuñu dëkk nekk Touba kon xanaa kon maire bi du benn kon ku dëkk daaru xuddoos warta dem mairie wala ku dëkk daaru menam warta dem maire ñoom ñaar ñu daje fa mairie bi benn mairie la njabootu Touba lépp ci kaw mairie bi la aju kon naa fekk ak tappale wurul tax ñu jël ceeb bi ni la boo dëkkee fee doo am des woowu nag ba mu amee dañ ko doon def mbir moo xam ne kenn xamut lu mu doon ndax su fekkente ni dañu jël kayitu jàmbur dëpp ko bindaat ci beneen tur jox ko ko waaye léegi ki turam ñëw moom da ko yëlul amul ku yëlul ceeb bi tuubaa waaye ñi seen tur ni ko ñi ko seen tur indi lañ ko war a jox ñun nag pare nañu pare nañu dajale mboolem ñi nga xam ne amoon nañ bursu ñu ñëw ñu xañ leen seenub cër yóbbu yëfi ci yoon ndax loolu ak càcc la ak détournement la ceeb biñ jaay ak ceeb biñ dugal fi ñu ko war a dugal ak ceeb biñ nangu ci borom jox ko keneen danañ dajale lépp incha allahu taala su fekkente ni fii ak tabaski gi xat na buñ tabaskee ba noppi ñu dem ci yoon jébbali ji ko incha allah bu ko defee yoon atte kan la ñuy porter xam nga ceeb bi mu dikkee tegoon nañ ko ci loxo loxo yi ñu ko tegoon tegaat ko ci ab loxo ab commission nekk fii di yóbbu ceeb bi ak a superviser ñooñu doon superviser ak a euh, ak a séddale ñoom la ñu yóbbu ci yoon buñ demee ñoom danañ wax ku ñu jox ceeb bi. waaye yow man Ibrahima Samb laa tudd Touba laa dëkk. man lu ma amul preuve du du ma ko wax ami preuve moo tax ma téye ko ci sama loxo ni dañ leen yóbbu ci yoon am nañ preuve yu wér péng yoo xam ni la def ci ceeb bi dara jubul ci ñoom xam nañ ko ñun ñii di wax xam nañu ko askan wi ñu ko séqal muy askanu tubaa xam nañu ko te ñoom dañoo seetul yàlla ak sëñ tubaa ndax beneen dëkk lañ waroon a dem nit kii du fi amee waaye du tubaa rawatina leneen li Mansour Faye mi yor yëf yi dëkkam ba mu moom muy mu di fa maire di ndar amu fa amul Kaolack amul Kees waaw lan moo même Mbàkke gii sax sa suñu amu fa lan moo tax Touba ñu ñëw fi benn groupe bu ndaw yor ko te li may wax nag Abdou Lahad Ka monsieur le maire de Touba dañ koy wax ni ko ndaw yi mu doon liggéeyloo na wut comité de suivi ñu saytu li ñu doon liggéey wa ilaa moom su boobaa danañ ko jàppe complice ki yëf yi ndax nag lu jiit njaag mooy njaag moom nekkuloon ci ceeb bi waaye ñu nekk ci ceeb bi nag moo leen ci dugal moo tax ñu nekk ca ceeb ba